Euh, programme bi dafa xaw a bouleversé wu ndax euh, xibaar bunu bu nu jot euh, di xibaaru tiis dañ ci ànd ak sax ak sunu naataango Abdoul Aziz Mbaye bu bu TFM Abdoul Aziz ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar. waaw xibaaru tiis wu bawoo Tiwaawan. waaw xibaar bu xiis bu bawoo Tiwaawan Babacar sëñ Abdoul Aziz Al Amin xalif général de Tidiane moo wuy boromam ci guddi. Euh, léegi xam naa ni ñëpp nga jëm Tiwaawan ci wàllu woow mooy daal li nga xam ni moo moom la ñu jot euh, leerlu ko nag ci ñu bari baree bari ba mu wóor nu ñu doog ko mën a génne. Mhm. Euh, ci li nga xam ni moom mooy li xew nag aw tiis la ndax bu yàggul dara lu ñu mel amoon fii mu wuutu ki fi nekkoon daal xam naa ni taalibe yi daal wax dëgg yàlla mu ngi noonu.

nekkoon koo xam ni dafa jege woon wuy juróom sëñ Babacar moo ne moo tax ñu ko doon wax mooy secrétaire ci sëñ Babacar léppam ci biir néegam ci relation publique am ci relation yi nga xam moom la ma kër dine yi ci relation yi ma moom nag mu xaddam yi lépp sëñ Abdou Al Amin moo ko yoroon xam ngeen bi sëñ Abdou Abdou Aziz Malick Dabakh nekkee ci xalifa gi moom la woo jox ko li nga xam ne mooy porte parole famille bi mu yore ko nekk ak moom moom lañ ko tuddee tamit doxal ko doxalin wu mucc ayib Ah, bi sëñ Abdou laqoo ñu sëñ Mansour ñëw ni ko yaay yaay rakk ji man ci suuf ci man rëkk te doomu rëkk expression boobu ci moom la ko ci moom lañ ko jële nekk ak moom doxal ko léppam mu yore ko lépp lépp lépp lépp lépp lu nuy doxal bu sëñ Abdou jiitoo sëñ Mansour nee na amatu ci kàddu lépp loo xam ne def na ko d'accord na ci loolu la nekk ak magam jooju yor ko ci biir ci biti waaye li ëpp solo Babacar mooy yor gi mu yor taalibe yi taalibe yi nga xam ni sëñ Babacar bi mu demee nekk ci kër gi mu yore ko jarbaat ci biir kër ga ñoom kalambay ñi nga xam ne ay jigéen moo leen jur taalibe yi nekk ci biir kër gi ñii génte ñii xaru tabaski yi mu yore leen lépp nag lépp nag lépp lu war ci diine ji mu war ko diggante moo këri diine yi bi sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum nekkee ci xalifa bi te génnul message bi mu ko jox keroog ci bis ba maa ngi koy fàttaliku def ni Abdou ngi fi Serigne Baye ngi fi ak sëñ Modou ak Pape Malick noonu doxal la leen mag ñi bàyyi loon naa leen ko léegi daal li ma leen di xamal mooy sëñ Abdou mooy sama kaddu renouvelé naa ko sama confiance bu ma dee gisit moom laay gis lépp lu mu daan joxe xam nga ci moom la ko daan jaarale sëñ Abdou mosula tànxam lu genn kër tànxam lu benn soxla ci taalib bu mu doon doon tijaan wala murit wala laayeen bari na ñoo xam ni saalam nag man miin nañ fa ci dem wax ko seen problème mu jóg dox ci intervenir ci nguur gi gis ngeen bu réew mi tollee ci xat-xat ak ci kii la ban taxaw la ci daan taxaw daan def li nga xam moom la turandoom sëñ Abdou Aziz Malick Dabakh doon def bi sëñ Cheikh nag nekkee ci xalifa gi ba dem mu yore ko moom nag yàgg na ko nekk bi li ko sëñ Cheikh def yëpp génnul kenn gisu ko kon sëñ Abdou moo nekkoon de fait xalifa sëñ Abdou Aziz Al Amin bi sëñ Cheikh làqoo mu toog ci place bi woo ay rakam uuf leen jox leen li nga xam ne mooy responsabilité yi nga xam ne moo am gis nga li mu entreprendre nag ci li ay réforme dafa bari euh, formé na euh, créé na benn école daara moderne yi ñu wax moo ko njëkk a formé boo demee Tivaouane am na fa centre d'apprentissage indi ay nit ñu jógee Maroc ak ay Égypte ay professeur di leen fay yor ay talibé di leen dundal bay ay tool taxawu askanam ak ay doomam yépp nag yépp nag woo sëñ Mbaye si Mansour mi nga xam ni moo topp ci moom ci ki mag mu def ko porte parole ba sëñ Mbaye doon wax keroog ñëppay porte parole ndax kër El Hadj Malick képp ku fi toogal fenn foo mën a toog rek porte parole la ñoom sëñ Maodo Pape Malick ñoom rek ñoom ñett ñoo ci ñun mag sëñ Mbaye Ndiol Fouta ñoom ñëpp ñu ànd ak moom nag muy wéyal nag di génne di te wasaare tarixa bi ñu ngi doon paree dem sax États-Unis ci jàkk ju jàkk joo xam doon ko fa waroon inauguré mm-hmm. mu renvoyé leen ko. ni leen da ngeen di bàyyi malgré malgré at meek wér-gu-yaram yaram. wér yaram bi fu ñu mu jóg. mu jóg gis nga bu daan yëkk bu daan jóg sax nit ñi dañ ko yërëm ndax dañ koy jàppoo presque dañ ko doon leew wàcc ci escalier yi génn ak ñëwaat problème la woon ci sëñ Abdou ci wéram buñ ko masaana wax rek mu ne bu ma ko mënatul toog waaye loolu nag ñu ngi ko jël sëñ Abdou Aziz Malick Dabax mi nga xam ne dañ daan génn leen ma ma dem ci nit ñi mënoo génn mu ne bu ma ko mënatul du ma dem waaye nag fan yi passé la yaramam sutante mu toog benn place ndax xam nga tabaski bu jotee li muy daj ci yóbbu jëli xar jëndi ko ci boppam loxo boppam dara gën ki kër gu nekk ku sant si képp koo xam ne mu xaddam nga mu yónnee la fa bokk na ci yi nga xam ne coono yi mu mas a jànkonteel la ba avant muy nekk xalifa bi mu nekkee xalifa kon. li xew itam Abdoul Aziz bi mu wutoo Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum junj na ko. waxoon na ni du fi yàgg te nañu gars yi itam waajal. waaw na du ma fi yàgg nan waajal te jubóote man ko ndax li ma sëñ Cheikh bàyyi loon ni Abdou mu ne ko labbayk mu ne ko li ma bëgg mooy njaboot gépp nekk benn loolu mooy sa sacerdoce loolu mooy sa mission mu ne kon yëfi di fa yàgg na ñëpp nanu booloo daan na ko wax nag xam nga biir waxtaan boo dee wax ak sa njaboot liñ ci dégg ci sa wax en général du bari mais wax boo xam ne da ko daan ñëw en flagrant ci ay discussion ci ay waxtaanam en public gis nga rek ñi ngi doon wax bërki dem ñi ngi annoncé ni Achoura bi ci suba gi dina def une importante ngi ko doon prévoir loolu xam nga loolu tamit dafa bokk ci lu nga xam ni mission la woon ci organisation ci tërëlin bi nga xam ni tarixa bi noonu la ko gisee woon moom lañ daan wax inspecteur moom lañ daan wax ministère de l'intérieur tarixa chef na Tijaan lu ne nag jaraloon na ko ku ko tudd mu jóg ku wax mu taxaw lépp loo xam ne war na ko def fu mu war a dem dem fa teraangaam nag Babacar boo dëkkee Tiwaawan boo fa dëkkul yëpp lépp lu fa xew ci tiis sëñ du daan def loo xam ne kenn mësu koo xalaat ci wàllu dimbali mu yónnee fa nag yónnee fa ceeb yónnee fa dépense yore fa lépp loolu sëñ Abdou da ko daan def miraaran di ko def di ko def di ci taxaw ak taalibe lekk lekkamit guddi ñëpp mën nañ ko fekk ku ne mën naa toog ak moom lekk ku nekk daa daan ñëw ba deux heures du matin trois heures la daan reer waaye ba ñëwee dañ koy tegal ñëpp wër ko teg palaat yi noonu la sëñ Abdou dundee ci ay garbaatam noonu la sëñ Abdou dundee ci ay taalibeem noonu la sëñ Abdou dundee ci tarixa bi Babacar Euh, euh, ki nga xam ni nag euh, mooy Serigne Abdoulaye Aziz Al Amine ni ko ñoom maam Abdou doon defee ni ko Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mi mu wuutu woon doon defee lépp lu xew ci réew mi ca dugal loxoom. waaw sur le plan politique daf ci nekkoon koo xam ne c'est quelqu'un de très impliqué gis ngeen li mu dox diggante ay hommes politiques yu bëree baree baree bëri diggante te daan woo président Macky Sall di waxtaan ak moom fa kenn yëgul ci lii nga xam ni war na ko def lépp loo xam ni lu xew ci réew mi la rek sëñ lu mas na ci am posture mas na ci am posture bu responsable bu citoyen moom mënoon noonoo wax ni citoyen la bërki dem rek Babacar euh, ci taxawaayu réew mi ci affaire Khalifa Sall bi amoon na lu mu ci waxoon bis lu ci mas a nekk rek ci temps Ablaye Wade Idrissa Seck am na lu mu ci wax bu ci nekk rek taxaw na ci taxawaay boo xam ni ñëpp yëg ni sëñ Abdou lii mooy taxawaayam à chaque fois bu réew mi soxla lépp lu mën a doon crise bu masee am rek gis nga bëri ki dem enseignant yi biñu demee seeti ko biñu demee seeti ko gis nga ji leen wax te position bu jël rek position citoyen lay doon engagé def leen nangam waaye def leen nangam bu leen fàtte seeni responsabilité laaj leen li ngeen war a laaj waaye yéen it seen responsabilité bu leen ko fàtte dee leen ko doxal ni mu war a doxee loolu kooku mooy sëñ Abdou mi ngi mi ngi gagné àdduna 1927. 1927 la gagné àdduna kon war ngaa xam ni ci euh, mag 90 90 ans. Mhm. wala 92 ans mag la. Mhm. loolu lépp nag dafa nekkoon lu joué ci boppam ci ay atam ak ci santé ndax du koo xam daan na daa daan na toog. Mhm. fépp lay dem. waaw fépp fépp fépp daan nga ko dégg foo xam da nga naan ndax sëñ Abdou nan la mën a demee foofu. waaye nag moom daf ñëwoon rek kër gi moo ko ñor maamam moo ko ñor kër gi moo ko ñor loolu mhm. taxawaay yooyu daal sëñ Abdou amoon euh, babaka waaw quatre-vingt-dix ans euh, ci la làqoo kon euh, waaye itam bu ñëwee ci ay discours am amul làq-làqal amul jàdd koñ amul mhm. fenetel lu muy wax rek da koy wax jaar ci digg ba muy leer. waaw discours sans structure à tout moment rek occasion bu nekk day def discours daan na wax naan ñun kenn duñu wax li nu war a wax daan na wax it du dëgg ñëpp ko war a wax dafa am ñu ko war a wax. waaye bu daan tranché benn problème politique wala benn problème social ni mu ko war a waxe ci digg bi la koy waxe kenn du fa jógee naan sëñ Abdou lii la bëggoon a wax nangam la bëggoon a wax da koy daal di wax rek ci anam yu leer loo xam ni kenn du ci am sikki sàkk problème yi ma sa am yëpp nag ci sur le plan politique bu ci nekk intervention nit ñi dañ ko doon xaar intervention yoo xam ni bu ko génnee ñu xam ne responsable léegi-léegi sax mu génne ko nit ñi gisee neneen waaye moom daal liñ dëkkoon bi ko ko tra bi mu tracé loolu daal la topp la ko sëñ Babacar bàyyi loon ay baayam bàyyil ko fi sëñ Mansour sëñ Abdou Aziz Malick baax sëñ Habib ñoom ñëpp bàyyil ko fi discours boobu daal la mas a ànde magam yooyu mu àndal lañu di discours boobu la mas a tenir ci seen diggante ak ñoom ak diggante mag rakam yi parce que dara dara mosul a xew Tiwaawan te woowul sëriñ bay Mansour ni ko dem leen ngeen wax ak moom dem leen ngeen laaj dem leen ca Pape dem leen ci sëñ Maodo loolu mooy à à à à à l'interne comme à l'externe lépp lu muy wax rek njaboot gi li ci jiital teg sëñ Mbaye Mansour ca kanam tegal ko ñoom ñu nangal ko ko jël ay engagement devant tout le monde mooy suñu sëriñ mooy suñu kilifa mooy suñu mag ci ginnaaw la doon topp lu mu bëgg lu nu bëgg lu mu bëggul bëgguñu ko. loolu mooy li nga xam ne mooy dernier at yi nga xam ne fu mu toog daan na ko wax rakkam yi aussi daan ko ko seedeel ñun sëñ Maodo ku ci nekk di nga ko seedeel seede boo xam ni boo ko déggee لخم آه، عبد العزيز آه، بايلات آه، نيو لاي باي خلافه غي ناتوريلمون بوري كير منصور مومك واو واو خمغ خلافه غي بون خول بو فكي ني كي ماك منصور لا لا لا منصور نك مام تي كي ني واخ شيخ الخاوي suñ moo seexul xaw bi mooy wuy moom euh, kenn rek la ci wuy juróomu góor moom sëñ Bay Mansour euh, ci ku góor ñu am na ko magam bu jigéen gu ñuy wax soxna Fatou Sy Mansour soxna Fatou Sy Mansour mooy soxnay sëñ Mansour borom daara yi moom mi nga fa mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi bi yàlla na ko fi yàlla bàyyi moom moom moo jur ki nga xam ne moom mooy wuy juru sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane euh, xalifa sëñ Mansour bi nga xam ne moom lañ tuddee sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum

waaye ku am fulla la ci wax li mu bëgg a wax bu ko waree wax. jërëjëf Alaaji Abdou Aziz Mbaye dinañ jokkoowaat ak yow ci kanam tuuti oustaz Mor Thiam yow daanaka léegi nga yegg Tiwaawan sax. waaw Babacar maa ngi ci yoon wi nii euh, alhamdulilah di sant yàlla di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un euh, ñun ñëpp ci yàlla la ñu jóge ci yàlla la ñuy dellu Haaj Babacar xam nga ni li benn boroom xam-xam waxoon ne bu benn boroom xam-xam faatoo. mooy ak kàggu lakk na waaye Serigne Abdou du yemul woon rek ci kàggu dafa boole woon nekk kàggu nekk sàq loolu la ko yàlla defaloon mu nekkoon koo xamante ni kii euh, juñ la woon ci mbaar tariqa tijaan non seulement ci lislaam bi ndax yëngatu bi mu mujjee yëngatu rek mooy suñu mbokk yi nga xamante ne bi ñoo nekk fële ci Rohingya seen jafe-jafe yooyu bokk na moom sëñ Abdou ci ñi nga xamante ni bi ñoo ci jëkk yëkkati seen kàddu di wane ni la fa xew normalul te kilifa yi war nañ cee jóg war nañ cee wax position boobu rek bu ko ko yàlla fayee mën nañ am njort ci njort bu rafet ci moom ndax xam nga Seydina Aliyun keroog bu lislaam bëtam xonqee am benn noon bu ñëw défier lislaam Seydina Aliyun jóg faagaa noon ba detteel ko daaneel ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko joxoon benn assurance da ko waxoon ni ko lii nga liggéeyal lislaam nii tey bu la ko sunu boroom fayee sama xeet yépp mën nañ cee sauver te bokk na ci li yonent bi waxoon mu ni kàddu dëgg ci ci ci nit ku jaarul yoon kàddu dëgg ci nit ku jaarul yoon mën na fay tuyaaba ju bëree bëree bëri askan donc loolu nag mu nekk loo xam ne lu am solo la sëñ Abdou nekkoon koo xam ne depuis comme mu nekkee xale ci ci li ñu jàng ci ay jaar-jaaram depuis que mu nekkee xale ba ni mu nekkee mag mosul jóg ci di nekk ci tënku ci ndigal loolu la ko yàlla defaloon nekkoon na ak way juróom ba comme ni nga xam ne noonu la ko Abdou Aziz waxee léegi euh, way juróom bi nga xamante ne bi mooy Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu guddil ko ba cëggal ko ba sëriñ Serigne Babacar Sy làqu bàyyi ko ak Serigne Cheikh Tidiane Sy mu nekk ak Serigne Cheikh Tidiane Sy nekk taalibeem di ko déglu Serigne Cheikh Diagne si mas naa ko dégg ci kër jëmb mu wax ne kanta Serigne Abdoul Aziz munul am beneen kilifa bu dul man loolu nag loolu confirmé ne Serigne Abdoul njabootam la te loolu la yàlla defoon. ginnaaw loolu itam mu nekkoon ak Serigne Abdoul Aziz bi nga xamante ne bii mooy at baax jox ko nekk porte waaye loolu nga xamante ne bii loolu la Serigne nekkoon kilifaam. sëñ Abdou nekkoon kilifaam noonu la Serigne Mansour borom daal ji nekkoon kilifaam mu boole ko nag lépp lu aju ci ji lépp lu aju ci tariqa bi surtout nag li gën am solo mooy lu aju ci famille bi mu yor ko gérer ko di ko doxal Babacar dara manqué wul dara yàquwul. Mhm. man bi ñu ma bi ma waxee ni ma moom làqu na sama xel li mu a li mu jëkk a xalaat mooy rôle bi mu doon joué. est-ce dina amaat kenn ku nga xamante ni kii beneen ji mën taxaw. Mhm. ñëw jouewaat rôle boobu nga xamante ni moom la doon joué mooy rôle puso di dajale di sauvegarder di yor di téye xam nga ne Serigne Cheikh moo nekkoon kilifaam ñoom ñaar ñu bokk asukan ak Marème Salbé Serigne Cheikh dem nekk ci yeneeni mbir ca ba bàyyi ko kër gi mu yor ko dépense kër gi taalibe yi ziar fi ñu war a jël tariqa bi tool yi lépp mu ñëw gérer ko. tabaarakallaahu donte ñeneen ñi ngi ci yeneen côté di génn di loolu waaye moom moo gérer woon kër gi waañ wi ku xamu waañ wa na mu jafee loolu yëpp nekk ci baatam mu yor ko boole ko service bi. Mhm. boole koog taalibe yi si donc kenn la woon koo xamante ni bii li ñuy laaj mooy ndax li mu gàtt woon. boroom parewaar na jeneen jëmm. Mhm. dëgg la nag yàlla sunu boroom mbiram du suuf. ah balaa muy jël kenn muy dem dana am keneen ku mu taxaw téeñal ko mu yanu ko parce que bi Serigne Babacar si doon wax ne Serigne Babacar lii mu yoroon est ce que dina ko kenn kenn ku mën a yor Serigne Abdou Aziz Dabakh kadalika Serigne Mansour kadalika Serigne Cheikh Tidiane mii ñëpp di jooy jooyte noppeeguñu kadalika waaye mhm. moom taxawaayam am na lu mu doon firndeel waaye du ñuy jaaxle ndax bërki dem ba bi nga xamante ne bi ci dëju Serigne Cheikh bi bi ñu toogee ñëpp dañu toog mu yëkkati kàddu jël lépp kàddu yëpp teg ko ci loxo seriñ mbay Sy Mansour mu yor ko di ko doxal euh, rakkam ja Serigne Pape Malick Sy rakkam je Serigne Maodo ñooñu nga xam ne yéen ñu leen di ñaanal yàlla yokk seen wér doomam yi mu am yi nga xamante ne bii moo leen jural boppam yaral leen boppam muy ku mel ni Serigne Mansour bu Serigne Cheikh Tidiane si ku mel ni Serigne Moustapha ku mel ni Serigne Cheikh bu Serigne Mansour ku mel ni ñooñu nga xamante ne bii moo leen jural boppam yaral leen boppam ak ñeneen ñi nga xamante ne bi Serigne Mansour Sy Djamil ak ñeneen ñeneen ñi nga xamante ne bi mën nañu gàddu flambeau bi yóbbu ko fa ñu waroo yóbbu. Hmm. moo tax bët dana xonq waaye xel du xalaat leneen. kon nag jàpp nañu ni mission bi incha allahu taala dina yegg fa mu jëm liy metti nag mooy réew mënul ñàkk mag surtout mag mu baax te Serigne Abdou. dafa hmm. bokkoon ci mag yu baax yi. mag yoo xamante ni bi daawuñu seetaan euh, Serigne Babacar. daawuñu seetaan. sëñ Abdou nit la woon ku franc ci ay kàddoom. Mhm. xamul woon waxi ruq lu mu doon wax doon na ko wax même bu fekkee neexu la di nga dem ba histoire jox la dëkk nga ni ndekete lii la kilifa gi doon sauvegarder. Mhm. lii la doon wax. Mhm. donc euh, mën nga ko ñàkk a dégg te wante nag mag noonu la surtout mag moo xamante ni bii dafa boole ay époque yu bëri la dund. waaw mooy sëñ dafa dund dafa génération yu bëri. xam nga boo dundee lu jege euh, ah?